wala ma si fuhaa waxtuwaayam faqiirun faqiir miskin ak miskin te waxoo moom miskin sax ahwa ji moo gën a aajo woo kon faqiir aajo woo na asaka ci muur bu koor mën nañ ko jox mooy ki nga xam ne amul lu ñu dundee ci at mi faqiir mooy ki nga xam ne amul lu ñu dundee ci at mi te bu fekkee ne kon li ci lu ñu dundee am na ko ko ak ci weer mu am koy dundal xam nga daal weer ak mi di jaaxle am na sax dara waaye li mu am dana mën a lekk ba miskin miskin nag lu foogul dara ba yelwaan ba nit yi moom yelwaan du takk ci nit yi amul dara dara am na ñuy yelwaan ma tawoon Dakar ñuy jox Seydina Omar radiyallahu taala anhu dana yelwaan waaye yelwaan ba mu reer sarax ko lu ko ma teel mu jëm mu dégg ko ci beneen kër mu yelwaan ba mu reer daal koy def mu def ko ci ñàkk loolu day ba noppi yelwaan di sànq da nga lor ñu ñu ko yeyoo waa yelwaan ndax dañ leen lor dañ leen lor jox da koy jox yow ma ko gaañ kon nag dafa aw loolu ci mu ne laaj dafa araam dañ ko daganal nag ngir lor ndax ki lay laaj bu fekkee daf la jox ngir kersa ñëw laa bañ a jox ñëw la jox daga bu fekkee daf la jox ngir ngir sal la jox dagal bu fekkee daf laa jox ngir wane ni rek am na te bu la nit fay mooy sukkari mu ne nit ki li nga xam ne ci la kon laaj war ci dara muy bari di koy seetlu di jàmm ne ci mel bu la am nga ñu ci dëkk ngelaw li dina ko gis wala naan wala mu bëgg a tudd ñu dem boo xam ne ñu ko dox te amul faat wala ñu ne noonu daal xam ne kon ak ci dëkk mu yëw ma si waa toog waaye sa fàttali ñu fàttali mooy kooku nga xam ne am nañu ko doy ci ak nit miskiin ak miskin mooy ci yoru dara woote moom miskin aw ji moo gën a aajo suñu wootee kii ñëw ne fàttali la kii ñëw ne miskin la na muy def bu ne waxtu bi xaa dëggal yëpp na leen ñoom ñaar suñu ko wootee ñaa faw ñaa illaa li ribatin da ngeen di sikk te kenn kii daf ko wax ne miskin la wala fàttali suñu xool comme niru ko daal xaalam daal te teewul loolu ah déedéet jiite bi tax jiite doom bi jiite lenn dafay jëm ndax inama sadaqaat lil fuqaraa yi alquran li tàmm lil fuqaraa yi wal masaakin toog ci tey miskin dafa roy mun na suñ aslama bari jiit na jiit na sax wa taxarara te mu gore bu fekk itam kenn moomu ko ndax bu fekkee ne li jaam bi am nit ki def ko moom mu di ko liggéey dañ naa nangu alalam te moom dara waru ko dañ koy dundal di ko tuddee yooyu kon wa adima te mu ñàkk ba tey moom kooku ñu jox mu asaka ci xaaye tan ñàkk lu ko doy ci xañ lu néew doy ko am njaboot wala nga xam ne prix yi dafa cher li ñuy jënd pour lekk am na fa am njaboot wala nga xam ne prix yi dafa cher li ñuy jënd pour lekk am na fa waaye lii yëpp dafa seer ba dundee suuf la ci mën a am du ko doy daal. dama dem ba àddina fi ñàkk waaye du loolu day joxal yi ñu ne ak infaax yi wala dimbale dafa bari ay dépense ay nit ñu aj moom ñoo xam ne moo leen amee seen yooyu la daal nga xam ne seen i war-war ak war seen ëllëg la ko yàlla laaj boobaa daal di ko mën a aw sanaatin wala maanaam aw infaax yi wala moom ñu ngi ko dundal sax teg parce que moom dañu koy dundal ba tey te mu aajo woor mu aajo woor kooku ba tey mën nañ ko def àddaka moom dañ koy dundal nag bàyyi mu koy dundal wala moom boppam muy dundale te li mu am mun a mat ñu dundal te muy ñoo xam ne war na dina dundal buñ koy jox nag dañ koy jox ñu ko manqué rek dégg nga aw sanaatin wala jëf muy liggéey amu ko amul lu muy jëfe loo xam ne dana tax mu di ko jënd dund ma wala am na métier wante métier bi dundalu ko ba tey kooku mën nañ ko def tey rek bu amul amul client kenn du ko ñaaw loolu tey mel noonu wa adami bu nu wëti ba tey ki nga xam ne dañ koy dañuy sàkk ci ak ñàkk amam ngir nit ci mën a lekk comme ni wax adim wa adama jumli ak ñàkk a doomoo li xaasimi xaasim yi ak maanaam banu xaasim maanaam ñi nga xam ne xaasim mooy seen maam mooy surafaw yi seen góor mënuñu lekk asaka fekkee ne dañ leen di jox addiya bu ngeen ko joxul dara nag bu ñàkkee mën nañ ko lekk waaye ci nguur koo xam ne nguuru islam la nga xam ne dañoo tëral nga xam ne ñooy génn jaraaf yi lajale bi ak tey ñu di ko def ci bay ci maal ñu seet li nga xam ne lépp moom la yoon samtaane ñu génn di ci bay ci maal ñu njëriñam ci nit ñi waaye nag mu talib bi tey bii ñu tëjoo ci talib bi taxaw xaalis xaasim daal nga xam ndax xaasim ñu nga mën a ñu ji mooy sayba ma mooy moo ji sayba tàkk ci ñoom ñaar waaye xaasim moo ji saybate kon saybate mooy Abdul Mutalib mu ji Abdullahi Abdullahi di leen koo xam ne ci rëb woowu nga bokk kon ci nga def asaka fekkente ne nag ñu tëri moo ko jël xawtee ñu bëri mu tëri bari na mu màkk dan bi leen jël ñu ne dañu yaakaar
loo xam li nga xam ne moom la ñu mën war a jox asaka nga xam ne bu fekkee ne nguurub lislaam nekk fi boo xam ne dafa sàkk ay fonctionnaire yi wër di dajale asaka yi boo jiyee sa asaka yi ñu ko mën a jox mu ngay wax mu ni ka xasa bi naka noonu nga compter régler calculer ko ala addi min waral aji ñàkk joo xam daf la amee ameel bor nga xam ne kon kooku mën na lekk asaka man na yàlla bor bi ma amee loon nañ ko génne ci asaka bi maanaam ma jox ko muy asaka fekkee ne masalan amee na la ñaar fukki junne nga war a génne fukki junne ak juróom mu jox la juróomi junne wala lim la ameel ba tey asaka jee ko nga mottali ko wala mu yem ca suppilin ko ci bor bi te moom mën na lekk asaka nga jox ko dégg nga dañ ko tere lal muttalib bu ci àggee ne ñi nga xam ne xeetu doomu muttalib lañu foofa la ko at la ko la ko attaque mu ni wajaasa dagan na jox asaka li mawlaahum ñeen seeni mbaayal ñoom banu Haashim ñu wax ne du ñu lekk asaka kenn du leen ko jox su fekkente ne boreel nañu jaam xam nga wala ku boreel jaam ci sharia wala bu yaa koy moom ñooñu daañu mën nañu leen a jox seen mën nañu leen a jox asaka dakar ñu jox leen asaka xam ngeen de li ma wax wa qaadirin ak aji attan alkas bi ci fàggu ku mën a liggéey dara jotu ko mu mën a liggéey te mu ñàkk mën nañ ko jox asaka wa maalik nisaab ak aji am lu mat nisaab kii kat am na alal joo xam ne asaka war na ci bi ñu ko seetee waaye nag loola doyu ko faqir la wala du miskin faqir la ndax faqir ndax miskin moom du am lu mu joxe asaka waaye faqir mën na am loo xam ne asaka war na ca bu fekkee ne loola doyu ko nag ndax dafa am léegi ñu aju ci moom yu bari ñu war a dundal du ko dey kooku mën nañ ko jox asaka de wa maalik nisaab wa dagan na ba tey dafu ak sara joxe lu ëpp minhu ci nisaab mën na fekk na nga yëkkati bi nga seetee sa say asaka mu bari nga xam ne mat na ay nisaab nga fat yëkkati ci jox kenn nit loo xam ne mat na nisaab nga xam ne kooku dana ko asakaal moom ba tey mën nañ ko def wa kifaayati sanatin ak lu doy at lu mat at nga jox ko faqir bi walla miskin bi loo xam ne mën na ci dund at bu ko ëppee doo ko mën jox ndax kon dootu nekk faqir nga jox ko kon loo xam ne dana ci mën a dund at na dagan wa fii jawaasi dafiha mi ci daganu jox ko moom asaka li ma diinin ñeel aji boru summa axdiha topp nga jëlaat ko ci moom ndax daf la ameel ameel na la bor nga jox ko te amul lu la fay nga jox ko asaka ji ba noppi nag génne nga asaka kon nga jëlaat ko ci bor bi mu la ameel mu ni ndax loolu dagan na wala daganul tarat dugg na ci déng déng ci juróom ak bi ñu romb léegi kooku nga xam na ko yore bor ni ko léegi soixante quinze mille yi nga xam ne ni ci la napp xam nga kooku da nga koy da nga koo suppil rek la.
ah jokkalante bi la ñuy bañ.
waaw jël maanaam kooku da nga da nga da nga génne woo dara yow da nga ne rek amel na ma nangam na ko féete yow muy asaka ji ma ko war a jox génne woo dara ci sa alal kooku dañ ñett doy kii nag dañoo werante ci ndax dagan na wala daganul mën na bañ a dagante doy. mën na bañ a dagan ba noppi te doy na mu mel na ngay julli léegi waa ji nga dendal dégg nga portefeuille moo dégg nga daal di fal dang sa pos yëgu ko araam def na lu def nga lu araam am nga bàkkaar waaye yàqul julli bi nga xëy ñaar yu ñu bokkul la boo xam ne gannaaw du ko yàq rek waaye tere nañ nga ku ko def bàkkaar bi dana fi nekk ba noppi jëf jee kenn du la ne jëfuloo ko doo ko jëfaat mu ni wa jaabin mu ngi lim toujours fi mu ne masrifa dal ne faqirun wa wa jaabin ak jaraaf ji mooy ki nga xam ne moom mooy wër bu tam xarit teroo di wër réew mi di laaj di dajale asaka yi di indi ñu di ko def ci bayti maal kooku daañu ko jox asaka maanaam bu dul faqir daañu ko fay maanaam li ñu koy fay ci dajale boobu muy dajale wa mu farriqun ak aji teqalee ji ki nga xam ne moo koy fab di joxe xorrum nag di gor kenn moomu ko addulun di aji maandu maanaam di ca soppandikoo nga xam ne dagalul aalimun te mu di aji xam ñi yeeyoo asaka ak nu mu leen koy joxe ndax aari muy aalimun bi xukmihaa ci atte bi dégg nga xëyu haasimiin du ma ko ci haasim mooy di waxoon addi adam wa addu bu mu wut li haasim wa kaafirun ak yéefar bu lekk asaka dégg nga kooku nga xam ne mu farraq boobu nga xam ne teg nañ ci sart yu xorrun adlun aalimun bi hukmihaa nag mu ne mu nekk xayru haashimiyin du caa gën a haashim mooy maam wa kaafirin du mu yéefar tam wa xayru kaafirin ba tey mu ne wa in ganiyan donte aji woomal la woon itam maanaam jox gi ñu koy jox asaka yi dañ koy fay ci li muy wëndeelu di dajale ci alal asaka yi dañ koy jox waaye du caagi ni gannaaw xan yi la aji woomal la du lekk asaka du ko asaka waaye asaka ji ñu koy jox kon fay dañ ko ciy fay masala coono mu ne woo guddi ah tàmbalee fat na sax bii ci moom moom lañuy njëkk a jox mu ne waa axasa jàppat na alfaqiru aji ñàkk bi wasfayhi ci ñaari meloom fekkee dafa nekk di faqir boo xam ne yeyoo na asaka ba pare liggéey ci asaka ji ci dajale asaka ji daañu ko jox li nga xam ne moom la yeyoo ci asaka ji maanaam bi wasfayhi faqir ba tey daañu ko fayit ci asaka ji liggéey bi mu ci liggéey mooy bi wasfayhi ci ñaari meloom mu ne walaa yoxtaa deeful jox xaarisul fitrati aji garde ji muuru koor yi dañ ko si jox min xaar ci muuru koor yi dañ ko si jox dafa ne woon wa musrifuha faqirun wa muallafun ak koo xam ne kii dañuy miinal xolam lislaam kaafir ñu ko di yéefar wala mu àllaf la xolub dañ koy tàmbalan li muslima ngir na tuub rek mu ni loolu waxu moo àtteem boobu baaxin aji des la moom dafa am werante dafa am ñoo xam ne ñu bëgg lislaam day neexalante ndax booba dafa néewaloon dafa néewoon ñu ci ne mu bëgg nit mu mbooloo mu bari mu tuut di ko dimbali ci yéefar yi muy xaree gannaaw bi lislaam am na doole soxlaatul neex ko kenn Seydina Omar àtte woon na àtte boobu am na ñu ne ba tey gannaaw dañu bëgg ki nga xam ne dafa mel ne ku jeng jëm ci lislaam di ko neexal noonu di ko xamal tabeek lislaam ak jikko yaram bi ci lislaam bokkoo bi ngir mu tuub ngir dimbali ko ñu ne kooku ba léegi mu ngi aajo woo loolu kon àtte bi ñu ko wax mu ko àtte mu ba tey baaraate bi ko dañu ne woon musrifa faqirun mu ne war a tiqun ak ku ñu moom mumin ku di jullit ngir goreel ko aleykum salaam wa fi riqaabi walaw bi aybin doon dafa ànd ak ayib itam yu taqu joo xam ne def na goreel ko min ha ca loolee ñu ko jox waaye laa aq da xurriyati du ci ak yéen ñu di ko jox ci koo xam ne dugg na ca ba tey pas-pasu ngor fii ci moom li ki tey dafay jotoog ki ko moom weer mu ne mu jox ko nangam ba mat nangam mu moom boppam lii bët wala daf koo def mu attaq li ajalin bu tam xarit ngaa aleykum salaam nga lii bët wala muy def mu kaatu ga di jotoog moom moom moom la ñu kon wax kon dégg nga wala umu wala taf yooyu daal ko xam daal petu ngor dugg na ci moom kenn du ko jox kenn du ko jox wa walaa uhu ki nga xam ne dañ koo goreel ci asaka mooy li mu waxoon raqi raqiqun muminun kilifteefam lil muslimin ñeel na jullit ñëpp min al wala léegi jullit ñëpp ñu wa in ishtaratahu doonte sartoon na ko lu ma ñëw koy maa ngi jox sama asaka ji kii waaye maa ngi sa wala pour nga kii libre aw fakka wala mu xobbi asiran bu ñu jar-jar la bi si du ko doy kee bu ko sàrtee du ko doy sàrt bu du doy ki nga xam ne itam alali asaka ji au lieu mu jox ko jaraaf ji wala jaraaf amul bu war koo def ci anam yi ñu wax ni ci la ko war a soppee moom mu fekk ku ñu jàpp yëfar yi jàpp ko ci réer mu jote ko ko du ko doy day génne asaka ji du doy am na tuyaa bay foofu bi kooku ñu jàpp am ñu génnee gul asaka wa madidun ba tey mooy wal xaarimina fita kam wal xaarimina ak borom bor yi nga xam ne dañ ko jiital ñu fay ci bor yi wala maata doonte deewoon na it yox basu la wala yox basu yox basu bor bi bañ ko yóbbaale loolu moo tax dañ ko yóbbaale ma xam xam naa noo indi law aasha insaan aaj maa ngi ci kii foofu ko doon ñu fa innahu law qutila insaan fi sabilillahi salaasa marratin summa aasha wa ma'ahu daynun laa yadxul nit duñ ko reyoon ñetti yoon ci yoonu yàlla yi maanaam rey ko suñu borom dekkal ko jihaarati bañ rey ko doonte aji jihaar shahid la aji dugg dafa suñu borom seen roo yi mu ngi ci jot picc yu wert yi fet ci dëri àjjana mboonee ñu dellu ci ay kandiyee ci aras doonte am na la daraja jooju koo ci xam ne kii am nga daraja ji ñetti yoon ba ñu rey la ñetti yoon ci yoon yàlla nga am bor boo fayul baalu ñu la ko yemul ci am buntu ba àjjana fee fii jënt wu ko moo tax wama dinu ak ak aji boru wala maat doon si dewoon na it bu bor boo xam ne yox basu def na tëj ko fii ci moom waaye laa du caa génn boro boo xam ne dafa amee da fi fasaadin ci yàqte wala yàq nit ki dafay leb di jëndee ñool rek di naan di jëndee sàngara di def yu kan xamul yu tere daal ba am bor yu bor yu ko jiital nga xam ne sax baatu ko def wala li axdiha du caa génn it mu di ci jël nga xam ne lu muy tere
soo xamee ni daal day day def yooyu kon jox kenn dootu doo ko jox asaka déedéet du jox lu ko jël Wante fàq ko jël ngir ay waaw ñu xam ne daal kii daal bu amee xaalis yi def ci def nangam ak nangam te loolu daganul ñu ko jox asaka lu mu ñàkk ñàkk bu ko xiif bi doon rey it dem nga ko sarax de xam ne boo ko jox asaka du doy ñu ne faaw mu ne ah illaa an yatuuba ndare boo tuub na ala laxsani ci wax ci gën a rafet kon xayrul ahsana ngi fi koo xam ne nee na bu tuuboon duñ ko joxati waaye nag wax ji gën a rafet li gën a rafet lu daal mooy bu tuubee tuub gi dëgg ci moom sababu bu nag in ata ndem joxe na ma bi yadihi li nekk ci yoloxom min ay nim ci kenn fekkee ne am na dara nag na joxe loolu ca bor ba ba noppi li ci des nag asaka ji soo koy féetewoo wa fadli xayriha ak ndesiitu leneen lu dul kee lu ko xam ne xaas aleykum salaam dégg nga ay ni waaw fekkente ne leneen lu dul kee même ay marchandise ak yooyu des na dégg nga dañ koy joxe ba noppi dañ joxe ci moom lu nekk ci ci lu mu am ci kee rek lu nekk ci loxoom ci kee rek dañ koy def ci bor bi fekkee ne tam am na yeneen marchandise yu def ñu def ko ci bor bu desee nag ñu soog a fab nag ci asaka ji soo koy mën a fayal bor bi mu ne wa mujaahidun ak aji jihaar wa fi sabilillah koo xam ne kii dafa nekk ci ña ca toolu xare ba seen i jumtuwaay ak seen i dund seen i waruwaay ak wa aalatuhum ngoog sax ak jumtuwaayam ñu daañu leen jox asaka wala waxam ne yéen aji jihaar ji moom doonte aji woomal moom tam mu nir la ci jox gi ñu koy jox asaka mu nekk jaa suusin naka noonu aw rëj espion yi agent secret bi dafay dem ca réew yi ñu nuy xareel di xool seeni mbir ni mu demee seeni gànnaay seeni fogaru ndax mën nañ leen a bett waxtu wu ñu sàggan ak lu ñu nuy fexeel lu ñu xam ne wax na ko jox ca kooku daanaka muxaamir muxaamir la ko def na fi sabilillah mu ni laa suurin caagee ni pour tabax ci ay tatale suur tatalañ ko mën a wax ci wol soo demee ci dëkk yi dëkk islam yi ak yi même fii même Maroc Rabat da nga gis ay mur yu kawe noonu ba wër dëkk bi dañuy bañ guddi noonu yi jaar fi ñëw dal ci waa dëkk bi rey leen mel na fekk na soldaar yi mën na fekk na ñu ngi xare ji ci réew mu sori am ay yeneen i armée yoo xam ne dañuy jaaran rek ñëw dal ci kaw dëkk bi ñu tabax nag kii yooyu dëkk yi suñu bari na ko fii
ñu ray yu rëy yi.
waaw Baxdaad am na waaye mu ngi toj na lu bari na imaam Kisra xam ne foofu foofu la newoon foofu ci ci Irak lu ci bari mu ngi bokkoon ci village du Faris te ngay gis des sites kii bi mur ya ba dee mu ne mujaahid wa wa markabin du caagee nit warwaay dañuy fab ci alal yi asaka ji tabax ci ay gaal kii di ko jullit ñi di ci dugg itam di xare ji duñ ko def wa garibun ak aji tumuranke koo xam ne amul fii dara dafa jaaxle te réew mu mu jëm dëkk fa am na fa alal muxtaajin koo xam ne ajo aajo woo lañu limaa ñeel loo xam ne yuusuluhu dana àggal ko fu mu dëkk ñu jox ko ci asaka ci loo xam ne dara ci lu paas lekk ci ba àgg dëkk bi xaalisam ne fii xayri masiyatin ci lu dul dox mooy fekkee ne dafa seetaan mu football rek wala course wala làmb nga dem ci réew mi loolu Côte d'Ivoire am fi xaalis bëgg ak lii dañ ko jox dara wala muy jib te fekk amul itam mu sàlli fan ku koy lebal amul ku ko mën a lebal ba mu àgg foofu kon waxoo te mbir mu fekk mbir moom moom mali yoon te fekk te fekk mbir moom moom est-ce que loolu digg na ci wala te fekk mbir moom moom mënuñu ko waxoo te fekk te mbir moom moom te fekk mbir moom moom mali yoon aji woomal la bi bëri di te fekk mbir moom moom mbir moomu moom.
bismillah lu tax waawul xam.
waawul xaal waawul xaal xaala kaw ni kon waxuwa te fekk moom wala waxuwa te mbir moom moom na xaala kaw ni waxuwa maliun jumlay xaal wa jumlatul xaal siwa ma qaddima bi waawin aw bi madmarin aw bihima والحال قد يحذف ما فيها عميق وبعض ما يحذف ذكره خلولا وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها المبتدا له المضارع تعلم مسندا وجملة الحال سواء ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما وهو على كونه مجيد bi baladihi wa su daqa dëggalee fa naka la su fekkee ne dafa wax ne moom amul dara lu ko àggalee dëkkam te am na fa alal waaye su fekkee ne dañ ko jox ba noppi nag te fekk waxul dëgg mu ne wa in jara su fekkee ne dañ ko jox ba noppi mu toog bañ a dem nun si at nanga wax ko bu ñu ci moom mu nir la ci nangu bi ñuy nangu ci moom mu nekk rasin naka aji jihaar dafa war a dem ci xare ba dégg nga moom itam de bu demul dañ koy nangu ñu ne wa fii xaaribin ni ci borom bor bi nag moom yës tax nii koo xam ne dana doylu gannaaw bañ ko joxee ba noppi mu am alal ndax dañ koy nangoo ne ko li nga am léegi kat mën nga cee fay bor yi wala dañ koy bàyyi moom dara dudul am nañ ci jël dañ ñu continuer bismillah mu ne moomu di ko soppee fat na isaarul mawtarri ëfal maanaam jiital daal aji loru duna umumi lasnaafi wëliis mboolem xeet yooyu ñu wax ki nga xam ne daal moo gën a lot ci ñi nga xam ne yeeyoo nañ asaka ñooñu ñëpp bu ñu fi dajee ki gën a lot wala ñu sopp nañu ñi defal ko jiital ko ñu def ko loolu nga njëkk koo tàmbalee nee nga walistinaabati ak sàkkoo wuutal waaw nga sàkk koo xam ne kii moo lay joxeel asaka ji sopp nañ ko maanaam yow nga comme mel ne fii amul jaraaf joo xam ne mooy wër bàlli mooy wër di dajale asaka yi nga di ko joxeel sa bopp léegi nag nga bañ ko joxeel sa bopp ngir wattandiku si njistal wala bañ ko lu ci gërëm wala yooyu nga wax nit koo xam ne moo ko fab joxeel la sopp nañ ko ñu bañoo ci gërëm loo ko loo def ngir yàlla buñ la ci gërëmul la ëpp yàlla soo ko joxee ba pare sax mu saaga la ci la ëpp yàlla wala soo ko joxee mu dina gërëm dina gërëm dina gërëm soo ko joxee dina dina gërëm ba toll mu dina gërëm léegi mu jeex aywa tuyaaba ñu jeex.
doon na bëgg gën. man loolu tax na bëgg gën.
waaw kon. loolu dañ ko sopp. waaw waaw waaye bu tàmbalee ba itam bu fekkee ne dañoo seet dañu seet ñaari xaal yi bi ci gën a tax ñaan ñoom ñoom ñëpp ñu ñëw jiital lañu kenn ku ci nekk jiital bi ñu la war a jiital am na sabab ñu seet nag asbaab yi ku ci gën a war a jiitu noonu la kii dañ koo soppi rek kii dañ koo digle mu ne waxat tajibu amaa bu mu war a tax moom wutal fekkee na tagal nga ne daal waa ji daal boo ko joxe asaka nit ñu mu la otis na la gërëm trop nga wax booba dana waar wala nga gis tal ca boobaa nag dana waar nga wóote wa kuriha si bee far na la ñëw ko xëy na isin booba la tax si su xari bi boo xam ne mu ngi joxe moo xam dañ koo wóotal wala mooy joxe asakay boppam lay joxe mu jox ko rek ay mbokkam nañ ko fekk yooyu war nañ ko mën nañu lekk asaka waaye mu tànn leen ndax ay mbokkam la mu xam ne su ñu woon sarax loolu sopp nañ ko waaw waaye bu dee asaka kon dañ ko sib waaw waal yàlla mu nax yu mën a def na tere ita u zawjatin joxeeg jëkkër mu jox jabar zawjan mu jox jëkkëram asaka ndax dañ koo tere aw yukrahu wala mu koy dañ koo sib rek taawilaan am na si ñaari bon nga xam ne bii mooy asaka bi mu war koo ber fii ngir bu gisee kuñ ko jox wala bu jee bu jaraaf yi ñëwee fekk waxtu wi jot na bu dee mbay yow xisaabi yi ñu wala wala bu dee kii commerçant ah benn muy mudir wala muxtakir bu dee mudir waxtu wi bu dee muxtakir waxtu wu jaayee bu ko bu ko isolé surtout sax ci mbay mi tax muy wax bu ko isolé daal ngir nga xam ne daf koo génne fi mu ne daal daf koy fas yéene génne ni nga xam ne génne génne dana yéene ni nga xam ne bu doon julli wala mooy kii dana ji wala war dana yéene maanaam yéene ji lu war la maanaam daal ci bi nga ko yëkkatee donte joxe woo ko it wante ki nga koy jox moom soxlawul nga di ko xamal ne asaka la wala nga di ko yéene far faratawul waaye farata la daal bi nga koy génne nga yéene donte joxe ko kenn da nga ko wàññi ba xam ne nii la toll nga natt ko rek teg nii di ko teg di ko génne rek maanaam te joxe ko ko dana wala dana war nga nga yéene ko wa tafriqatuha ak teqaleem bi mawdi'il wujubi ba tey war na de wa war na tafriqatuha teqaleem bi mawdi'il wujubi ci bérébu war na li ki su dee mbay fa mu ko bayee su dee alal fa mu ko moomee ni ki commerçant bi foofa la ko war a joxe bañ a jéggi fii nga xam ne fi la ko asaka ji waree ñu génne ko ba noppi dem di ko joxe yeneen bu nga xam ne dafa am ay charte yoo xam ne dafa may maye mën koo joxe ci beneen réew wala beneen dëkk lu ëpp doxu wàññi wala lu ko mat aw xur bi wala fu ko jege xam ne dindi na asaka ji joxewu ko fii nga xam ne fi la waree fi la ko waree woon waaye nag doxul lu mat doxu wàññi dafa dafa koo joxe ji beneen béréb boo xam ne soriwu ko noonu bu jegee daal wàññi nag boo xam ne su doxu wàññi daal jàpp nañ ne kon soriwul te kon def na li war daal bu bu ñu tere fii dégg nga ñu ne ko waaw moom kon daal du ko jële mukk ci bërëb bii mu ko waree du ko yóbbu feneen mu ne ah illaa li adama dara nga xam daf koy joxe ku gën a ñàkk ñii ñii fi nekk daal ci bërëb bi nga xam ne ci la ko asaka ñu waree nga xam ne daf ko war nii kës leen jox leen wala fu ko jege mu gis nag lu gën a ñàkk ba tax mu jéggi ñii nag dem yóbbu ko foofa di ko joxe ñooñu foofa dana dagat kon.
daa loolu ci loolu. man ci cadre boobu bu ñu ko nii mooy li waa di def leen. loolu am na ñuy dimbalee fii.
waaw waaye ñàkk ay ñàkk waaw maanaam tey ñoo xam ne ñuy jéggi léegi rek bi jëm si xam.
waaw ñu ko def léegi. ah dañu ciy dégg ne léegi ñuy jéggi. dañoo seet.
war a di joxe nag ba àgg foofu ba tey mais nag tey ñu jox ñii xam nga ne dagan na ñu jox nit ki lu mat nisaab maanaam faqi bu waaye nag bu mu fekk ne mat na ko dund at fekkee ne joxe nañ ba mu yaakaar ne ba yaakaar ne ñii yëpp daañu am kon dund at wala ñi ci des woomal nañu ñi ci gën a ñàkk xëy na am nañu dund at wala ku ci amul dund at it am na ñu la gën a lot ñoo xam ne may nañu ñu joxe li aadama ñu joxe ñu gën a ñàkk boo daal ñaar yooyu daal benn ñooñu dañoo ñàkkul wala ñu ñàkk te ñu gis ne ñee leen gën a ñàkk wala ñu joxe ba jàpp ne ak ci bu ñu seetee la ñu joxe daan gis ne nag léegi joxati leen ñi leen a gën a aajoo ñi gën a sori ñu gën a aajoo kon def na dakkan mooy li aadama joxe ñeen ñi gën a sori ñu gën a ci nun ñi fekkeen nag comme ni ko mujjee waxe ay xibaaraat siyaasiya rek la nag moom yoon mayewu ko
xam nga ne li nga ko jàpp maanaam ci bu ko waa ASC bi di wax rek ñu ne ñoom nan lañ koy defee ci dëgg-dëgg waaw xam nga ñoom dafa am ay yoo xam ni dañ koy andi fii ci Afrique léegi mën na Sénégal mën nañ ko waaw da koy joxe Waaw.
waaye nag asaka lay doon waaw asaka lay doon bu dul xaritam gi na xaritam ko leneen waaye loo xam ne lii ah asaka lay doon Asaka lool lay maa doon.
xar tabaski rek laa yëgoon man waa am na ci leneen nag loo xam ne sax dañuy yëngu ci léegi léegi di ko joxe di ko dimbale ay nit dañu leer waaye nag parce ñu que ngi- ñoom ñu ñu koy dimbalee xam nañ leen li ñu ràññeel lañu ñu ñu xam ba topp tool ba xam ne ñu yeew la asaka la ñu wala déet waaw xam nga foofu la wax ji nekk boobu nag bu fekkee ne nag loolu nag lu ci war la waajib la ñu ngi koy joxe ah.
ay jàkk kër yi financé xam nga ay jàkk yi itam wóorul waaw xam nga loolu nga ko waxee waaw ndax jàkka même muur koor yi ñu leen di jox bu fekkee ne ki ñu koy jox bu fekkee ne jox na ko ku ko yelloowul d- yow mi ko génnee amuloo asaka yow mi ko génnee amuloo asaka moo tax ci xam nga foofu nekk fi mu ne boo demee Dakar ñu bari dañuy joxe dañu génne seen muur koor rek wala seen kii rek dem yóbbu jàkka ju leen gën a jege waaye jàkka ju ñu jot rek jubul de ndax bu fekkee ne xamuloo ki koy ki nga koy teg ci loxo muy imam bi wala muy xaw ma bilaal ba lañ ko wax xamul bu fekkente ne xamuloo maandu na wala déet bu maanduwul wala xam-xam eggu ca ràññeem eggu ca mu jox ko ku koy ñëwul yow sa asaka du doy waaw xam nga bu ci mel ne ay koy ak yu mel noonu waaw ñoom seen bopp léegi day am nit ñoo xam ne bu ñu génnee asaka wasaadu alxaaf lañ koy def ci loxo bu ko def wasaadu alxaaf moom mooy dajale yooyu moo ko war a yónnee nag léegi ci affaire bi mel noonu dafa am ñenn ñoo xam ne daañu ko xam bu ñu leen bindee itam léegi pour laaj ndimbal yu mel Ouais.
noonu ndimbal loolu mu ngi jóge ci asaka yi waaw ñoom en général li ñuy bëgg rek nga xam ne ay considération politique yi ci am dañuy bëgg léegi li ñoo tas li nga xam ne jóge ci waaw gouvernement bi wala daal Waaw.
jéego commune Waaw.
xam nga loolu bu ñu tuddee rek wax dëgg moom Politique.
politique day am Siyaasa, dëgg la, siyaasa.
waaw moom dafa fay daal vraiment loolu moom dafa tax loolu dana ci fay daal lu sell ndax waaw te itam euh, li tax may ko laaj boole ci mooy xam nga boo xoolee ku mel ne caada bi mel noonu Sénégal mën nañu wax ne sonn nañ waaw
waaye bu ñu xoolee caada bu ñëwee gën a sonn ñu ngi gën a sonn waaw.
premièrement deuxièmement itam ñu ngi gën a jege arab jege arab yi arab yi.
yi est-ce que duñ leen yónnee ñoom su doy wala xëy waaw loolu daal Je sais pas.
xam nga daal dafa daf ci am wàll yoo xam ne daal day am fu ñuy visé waaw
xëy na mu tax ñu koy visé ndax dañ ko dugal ci wàllu wàllu bëgg plogum wala nangam wala daal ay masaal yi ñu koy topp ci wàllu wàllu xol moom dana doy waar fii dana doy waar fii tey xam nga bu fekkente ne itam naa xukuma boo xam ne moom islamiye la sir xam ne bu ñu ko joxee ñoom dañ ko jox ñi nga xam ne ñoo xam mbiri kile yi mbiri asaka ñi ko war a def ñu joxe ko waaye bu fekkee ne rajo islam yëpp na bu fekkee ne ay ay ay jullit la fa mu mel ne ki nga ko jox nga xam ne jullit la mel ne imaamu jàkka ji nga ñëw jox ko asaka ji mu joxe ko moom jullit la waaye maandoom àggul ci wala xamam àggul ci joxe ko na mu ko war a joxe bu ko ko nit ki def na tafriq ndax sonnul ci na ah jaamu yàlla dafa laaj nga attan ci son toppatoo ko ba mu wér ne lii baax na lii jub na ndax bu ci sikki sàkk amee rek dootu doy léegi bu fekkee ne seet na xam ne moom ki muy jox asaka ji kat xam na ne ni muy joxee jubul mën na koo jox dana ci jox ñoo xam ne yeewuñu wala dana ko di lekk wala yu mel noonu yow am asaka wax nga génnewaat asaka boo ko xamee te fekk na nag xam nga waaye lu nekk dafa laaj nit ki ak lu ci sonn moom nga koy misaale gannaaw moom boo amoon sa xaalis di ko dénkaane moom bala nga koy eh, toog ci loxo kenn dana la wóor dégg nga it doo dégg ñu ne rek diw bi maa ngi jàppale wala nag na te wóor la nga dem teg ci loxoom te xamuloo na nga koy génnee eh, wóorul seet ko la doy daal pour mun la génnee sa bu joxe la sa nekk Dakar bu fi liggéey di commerçant léegi nag ñuy génne seen asaka sa soog yi dëkk boobu te nit ñu yónnee ko ci ñu joxe leen
bu ki bu amee yenn si xibaaraat ak yoo xam ne bu amee du doy bu fekkente ne ñoom dañ koy jox rek seen i mbokk fii doonte lot nañu doonte lottuñu ñu jéggi ñu lot loolu jaaduwul tere nañ ko bu fekkee ne itam dañoo gisul koo xam ne mën nañ koo teg ci loxoom ku ñu jàpp ne dana ci maandu ba jox ko ñu ko yeyoo ñu xam ne diw sàng xëy na bu ñu ko joxee moom dana ko yeyoo nga xam ne ngir bëgg lu sell bëgg ñu jox ko ñu ko yeyoo moo tax lu mel noonu wala ñu seet ne fi leen wër ba yëpp amu ci fu ñu fi mën a lekk asaka lu mel noonu rek illaa li aadama ji illaa li li aadama ji ñu waxoon rek bu fekkee ne daal kii aajowoo na kee aajowoo nga jéggi kii te fekk du càggi ne këlee fa gën a aajowoo wala nga xam ne ñi fi nekk ñëpp mënu leen a jox ko xam nga sax xëy na ñu aajowoo ñu aajowoo nga ci waaye seen mbir bu leeru la ba xam ne nga xam ne mën nga leen a jox asaka ci wala déet leeru la daal yooyu moom dana tax nga mën jéggi joxe ko pour waaye bu dul loolu rek doo mën a jéggi ko aajowoo dem di joxe keneen ko aajowoo wala ko aajowoo ne moom parce que commencé moo xam ne ci wàllu nakaar bi am na ci xaw a ñu doy waa ñu tax suuf bi ndax léegi maanaam da ngay kenn ko xam sax dana ko génn wala li ñu ko daal da leen ko tuddee moom waaw boo génne ba noppi ba leen mu jox da koy denc Ah, ah, ah.
denc xëy na fa ay jamono yoo xam ne mu jënd ko ceeb nag léegi surtout ci ay yóbbu ko ba mu dëkkoon joxe leen ko ñu dugg ay mbir moom mën na coono xaw a bari kon soo daal am na moom dana bari lool sa kenn day ñàkk xam la ñu joxe rek dañu am yoolu sarax wala yoolu ndimbal waaye amuñu asaka su fekkee ne nag itam fuuka rek coowal kii daal pour wane ne kii naa de moom duñu am dara du nii du ne duñu am lee duñu am lee dafa mat di seet mbir yi daal mat nay seet teqantal daal waaw bu fekkee ne léegi fu nekk amul kenn fu ma def sa bopp léegi bu fekkee ne fu nekk amul fu ma def sa waaw bopp nga xam ne dina mu jël ko léegi yóbbu fu nekk waaw waaw bu ko dee jël yóbbu fu nekk waaw li muy fay transport parce que jël ko jënd wala mu koy jënd ko kooku mu ngi si defe naa ne ah mu ngi si kanam de ah bon kay mu ngi si kanam waaw ndax mu ngi ci jàll dañ ko xamul mu ngi si kanam mu ngi si gannaaw waaye mu ngi ci xale waaw kon dana ñëw bismillah mu ne bu fekkee nag daf koo dafa jéggi fii ay nit jéggi béréb bi nga xam ne ci la ko asaka ware ni ki fi mu ko bayee wala fi muy defee commerce ñi fi nekk am ñu mën a lekk asaka ñu lot mu jéggi ko joxe ñeneen ndax ñooñu dañoo gën a ñàkk loolu ñoo ne liñ gën a aajowoo tax bu yóbbu ko ba nga xam ne kon daf koy toxal kon fa ak saruha gën jaa bari la ci ëpp day def lëxoo ñeel na ko moom aji ñàkk jooju le ñii nekk fii nag mu jox leen ci la gën a néew maanaam bu ko séddalee cir bu mag loolu la yóbbu ci ñu gën a ñàkk waaye bu mu jéggil asaka ji lépp fii mu nekk ci bërëb bi te ñu aajowoo ne fi waaye nag bi ujratin day fay transport ba maanaam yool min al fay i boo xam ne ci màng bi alali jullit ñi ci baytimaal bi lay jóge su fekkee ne baytimaal am na bu baytimaal amul moom moom moom moom moo koy def ñëw nga wa illaa mu ne nag su fekkente ne moom mi nga xam ne dafa yëkkatee fii alalam yóbbu ko mu di asaka ñu jëlee ko ci bayti maal bi fay transport bi mun la nekk te ñëlee gën a ñàkk ba fa la war a yóbbu asaka ji wala fa la ko fas yéene yóbbu waxoon nañ ne la gën a bari lu leen di jox bii at jaayee fa ko wasturia te jëndee fa lu mel ne li mu génne woon ca bérébu ña gën a ñàkk jox ko dégg ngeen ko de bismillah waaw mu ne naka noonu lay toxale alalam ci charte yi nu weesu loolu la nirale nekk adamu mustaxiqin naka ñàkk aji yeyoo fii ci béréb bi nga xam ne fi la ko asaka ji ware mu seet seet gisul ko mën a lekk asaka mu toxal ko toxal gi bu fekkee ne lu diis la transport bi ni ñu ko waxee woon rek bu dee fi nga xam ne jaraaf yi jël si kii kii ci réew yi jullit yooyu nguur bi lislaam mu jëlee ko ca baytu maal bu dul noonu nag moom mu fay mu ne wa xuddima jiitee fat na jiitalee fat na génne asaka li yesi la ngir mu mën a àgg indal xawli ca waxtu jot wa léegi fi nga bëgg a yóbbu asaka yi ci charte yi yi nu waxoon ne mooy tax nga mën ko toxale fii ci bërëb bi mu waree di ko yóbbu euh, masalan ndar wala sàkk wala beneen dëkk bu sore boo xam ne daal mët na lool dox wàññi nga xam ne léegi tey mbaama koy sëf dana am ñetti fan ci yoon wala ñaari fan nga nekk nga xam ne léegi ñaari fan moo bu buñ fi amatee ñaari fan asaka yi nga war koo génne nga génne ko léegi nga xam ne bu amee ñaari fan fekk mu àgg te ñi nga xam ne ñooñu la koy joxe mooy waqt di ma jiitale fat ne génne asaka ji li yeesi la ngir mu mën a àgg indal xaw di fas ayu at mi mu ne nag wa in qaddama ndim jiital nañ maanaam teel a génne mu asharam lu ñu fukkal mooy mbay moo xam ne mii asamaan ko màndal aw daynan wala bor buñ ko ameel aw ardan wala marchandise mu nekk ci loxoom wala ngëbëb ko sax la qabla qabdihi ca la jëkk ngëbam aw nuqilat wala toxaleefat ko li duunihim walis ñi nga xam ne yeeyoo nañu béréb bi as yeeyoo nañu asaka te nekk ci béréb bi mu ne kon aw lu fi at wala jañeefat ko ba tey bi ijtihaadin joxeef na ko maanaam ci natt la rek farlu li xay far ñu jox ko nag li xay mustaxiqin koo xam ne du mu aji yeeyoo ko wa ta azra te gàntañal te jafe ma ne ful radduha delloosi nanguwaat ko ca moom yooyu yëpp de ca kanam la indi lan la tëraddud wala alquran
lam tujisi lam lan tujisi naa lam tujisi de waaw lam tujisi la de waaw lam tujisi du doy du doy mu dellu fekkente ne dafa béy dugubam war a génne fukkeel bi muy asaka ah léegi nag mu ne mu génne ko lu jiitu jamono bi mu ware wala dañ koo ameel bor wala marchandise bi nga xam ne yóbbu ko loolu lépp mu nattale waragul mu nattale génne ko loolu nga xam ne daf koy toxal moom asaka ji di ko yóbbu ci beneen bërëb te nga xam ne diggante bi mat na dox wàññi mooy bu gudd bu ñu ko waxee rek bu gàtt mooy bu matul dox wàññi yooyu yëpp de du doy dara dugg ci nekk su fekkee ne dafa jiital lu muy fukkal ñoragul àggagul ci wét ci maanaam fañ ko war a génnee asaka nga dal di génne asaka ji lam tëj si aw day leen wala bor boo xam ne dañ ko amal mu nattale ko dal di génne asaka ji lam tëj si aw arab ban wala muy marchandise aw la xam na xam bi xam nga marchandise moom bu fekkee ne waa ji mu diir la bu ñu ko fekkee ci loxoom rek lu nekk waaye nag nga bëgg ko li ñu fekk ci loxoom lan wax de léegi nga bëgg ko du dugal ci loxoom mu daal di koy nattalee génnee aw nuqilat li duunihim la nga xam ne daf koy toxal jëmee ci béréb boo xam ne mat na dox wàññi te du ci sart yi ñu waxoon léegi loolu yëpp de lam tuji si aw du fi at bi tihaadi dafa def farlu nag kem kàttanam ne diw daal war na mën a lekk asaka seet a seet seet ba jàpp ne mën na lekk asaka jox ko nag ndekete gayru mustaxaqin yeewul asaka bu fekkoonte ne mën na koo daal di nanguwaat daf koy nangu dem jox ko keneen ku ko yow bu fekkee nag wata asara nag dafa gàntal moom daal waa ji mu joxoon asaka ji ndekkee borom alal la ju bari waaye mënu la fexe ba jot ci asaka adduwaa lam tuj si ñu ne moom ku joxe asaka rek te ki nga ko jox nga def ijtihaad te ki nga ko jox moom nga seet ndekete yeewu ko rek mënuloo koo delloo moom du doy da ngay génnewaat asaka mu ne ah illal imaam day imaam ji nga xam ne moom dañ koo jox asaka ji mooy qaadi ji imaam daal fii nguur a koy fal nguur gi ko defee jullit ñi war a topp ci moom fekkee ne jox nañ ko nag moom déedéet ijtihaadam moom day dagan day wéy bu nanguwul bu mënul a nangu waaja wala mu réer daw kenn xamul fu mu nekk waaye ak yéen bi doy na ci génn asaka ji asakaam baax na aw paa wala moom moo coobarewu bi def ci joxam bi jaa irit xam ne ne waa ji jëng ngi nii dëng ndi asakaam jox ko fi sarfi nga xam ne ne xel daf koy lekk rek wala mu maye ko jox ko ñeneen ñoo xam ne duñ ko aajoo dégg nga aw wala mu génn bi qiimatin yooyu yëpp de lam ko gis benn ci di ko doy
ilal imaam bi wa tax bari bi seen asaka imaam bi ci jàkk waaye dañoo juum juum ndax imaam dafa am ay charte yu koy yu koy fale te imaam itam xam nga daañu wax imaam fekk muy xaadi ji daañu wax imaam fekk muy xalifa bi ci boppam mooy njiit rek waaw fii Diop. fi mu ne moisson bi.
waaw waaw moisson bi fii lim fi amul. ndax mbay mi ñu ngi jublu wala tey.
xadab waaw asaka ñu war a ko xam nga aatu xaqoo yow ma xasaadi yi waaw yow ma ak buñ ci nag mu daal di xuuf rek joxe génne asaka nattale
waaw ndax loolu euh, xel mën na ko nangu wala wala ndax da- da- da- dafa ëmbaale. ki nga xam ne tey yoroon na loo xam ne li mu bay loolu mu nekkoon ci loxo.
waaw waaye maanaam maanaam ah maanaam ba tey mu kilee ko ba tey da ci dugg voilà maanaam loolu.
loolu dugg na ci biir waaw motul woon asaka.
waaw waaye mu ngi woon moom ci xeetu lu ñu fay.
mu fab ko def asaka asakaale ko tool waaw jàpp na léegi tool bi ñu ñëw. te jin su waxee la nga xam ne normalement bu ñu waroon boole asaka mu ne ñërëgu annaaw génne.
waaw ba tey du doy loolu dugg na fi.
dugg na foofu day du doy kii bi aadama fekkente ne jéggi na jéggi na masaafatul xas jéggi na adim dem ci adam masaafatul xas ba ëpp masaafatul xas waaw bu fekkee ne adam ba foofa la nekk waaw ndax am na illa mu wax lu mu wax foofu laa li adama ay ashad adaman lil maali min mustahatu muslim bu jub waaw wala ko jub jub jub iman bay noqo nag sakar ku laha lil adaman wala ko sakar ku laha jub ay jub te aji saar ko kun toll woon bi mu ne kon aw faa waaw wala mu coobar yu bu defee ci jox asaka ji lu jaay ñeel koo xam ne aji dëng la aji jàngale doon ci sarfiha ci soppandiko ko ci joxe ko aw wala mu génne bi xiimatin xiima dafa xiimaal rek ñaar yëpp mën na daje ci kiin waxoon mu achar bi ci nekk rek la mu tudd si nii la def du doy mu ne laa in ukriha du caagee ne nag ndem dañ koo forcé dañ ko forcé aji jaahir jaahir ji dañ koy forcé jël asaka ji rek wala jaraaf ji ñëw wala dañ moom daal dañ koo forcé daal ba jël ci moom asaka ji dugal ko foo xam ne waruñu fa woon a dugal dara aw nuqilat wala toxalee fat ko li mis jin jëlee si ñu demee ne ñu demee ne moom képp ñu demee ne ñoom nga xam ne ñoom gënuñu leen a ñàkk gënuñu leen a ñàkk dañoo yeyow ñu yow képp waaye yow ñoo yemoo dégg nga dégg nga mu ne bu fekkente ne sori na ba mat na dox wàññi du teemu doy waaye nag def na lu xaraam tere nañ ko ndax li aadama lañ wax léegi nag joxe jox yóbbul joxe ku gën a ñàkk ku mel ni kii fi nekk rek ci ñàkk moom la joxe moom la joxe te sori na fa mu ko ji yóbbu sori na jéemewul ko itam fu jege fi mu ko fu jege fi moom fi asaka ji waree ci moom daf ko yóbbu foo xam ne mat na dox wàññi wala mu ëpp ko boobaa dana dana dana dana ba tey file dana doy ndax génne na asaka jox na ko aji ñàkk waaye nag jàng gi mu jàng mooy ñi mu ko ëpp weesale te ñi mu ko jëmee si ñoom gënuñu leen a ñàkk ñoom ñooma yam mooy taaddi li ñu tuddee taaddi dañ ko waxati ci wolof jalgati jalgati la def moo tax mu xaram man bu nee ci réew moom mu nekk nag dafa réew mu xam ne maanaam ay jullit bëri yu fa daal.
waaw war ko yónni.
kon muy waaw kon moom fii du ko fa war a joxe daf koy daal di moom inqiraaral daf koy daal di yónni yóbbu ca réew yi nga xam ne am nañu kii dégg nga mu ne aw quddimat wala jiitale fa ko bi ka shahrin ci lu demee ni ki weer kon bi ka shahrin dafa génne asaka ji te des na weer mu soog a wat ba tey dana doy waaye ànd naa ko cibel de cibel ñu nga fii ay nin ci fee bu dee ci mbay du mën a am ndax du ñor xale ñor su dee boor it moom dugg waaw wa machetin ak ndoxteef mu bu ko génneel asaka kee bi ci mooy wurus wala xaalis mu koy génneel asaka bi génne ko te fekk tam ñoom yi ci tabaski te tam xarit lay waat wala ay njub la ba tey fa in baa su fekkee ne réer na al muqaddamu la mu jiitaloon la mu génne woon te waxtu wi jotagul kon fa na génneel anal baaqi la ca des na ko asakaalaat daf koo génne te waxtu wi jotul asaka ji waral ko ah ba yi ñëw lekk ko muy wala muy xaalis mu réer wala mu lakk wala ñu sàcc ko li ci des na ko seet bu ma tee nisaab mu asakaal ko wéñ talifa su fekkee ne nag alku na yàqu na gis gisu nisaabin xaaj nisaab wala mumkin te jàpp li woon al adaawu joox saqatat mu rat dara duutu ko war léegi at mi dafa dafa dafa mat ba noppi nga xam ne asaka war na ko waaye nag dañu wax ne daf ko war a sellal masalan boo jëgu ko defagu ko dara ci jeexam waxtu wi mu ngi ko war a kii jot na ba noppi sellalagu ko waaye mu daal di farlu si jublu si jéem a sellal gi rek nekku fi nag di di caaxaan ak a taxawaloo ko bàyyi ba mu kii kooku mënagu koo joxe du ko war kon li nga xam ne génne woon na ko ba noppi mu yàqu musibam saa yi bee musibam bayti maal bee ndax moom def na lam man ndax mënu ko woon a joxe waxtu wi jot na war na koo daal di joxe waaye mën a koo joxe am na gàllankoor boo xam ne yoon nangu na ne lii tax na mënu ko war a joxe léegi nag yàlla dogal mu daal di alku ba mu ko daataan joxe wala bala jaraaf bi daatawoon ñëw mu yàqu wala réer wala bu lakk wala leneen dugg ci daal dootu as parce que wàcc na ko maanaam bu dee dugub maanaam wàññi bi dafa war a wut ndax fii àll bi nag ñoom dañuy def ay ndar waaw di ko meetar waaw kooku nag nattale rek lay doon ndax bu fekkee dina usul bi la dañ koy nañ ko def yu yem fukk yu yem ñu xam benn bi rek yem
xanaa nag ñenn ñi ci àll bi dañuy def léegi de moom kii la ñuy def moom 33 mètres la ñuy def bu dee kii ba defee léegi ñu jàpp ne léegi day 33 mètres 3 mètres yi ñu di topp ñu day néew si ñu def la moom as moom mën nañ ko ngeen léegi nga xam dañuy def ay jàng waaw bu mel ñu def 10 11 bi nekk as bi wala ñu def 20 22 bi 22 bi rek léegi 2 bi nekk nekk as dañoo ñoom ñoo ngi ñu ngi passé
waaw mu ne ka asliha naka noonu mu génne ko ber ko ngir war koo joxe xabdaa at te fekk amul tafrit mu sànq mu yàqu ba tey dara du ko war waaye laa indaa laa du rot asaka nag indaa ndem sànku na asluha ci saanal asaka ci boppam li nga génne nga xam ne moom nga war a asakaal lépp ca at mi mat na bu sàgganee bu sàgganul yëpp du rot wa damina warloot na sax nag in axraha nem yeexal na ko anil xawli at mi dafa mat ba noppi mu toogaatu diir alal ji yàqu dana warlu amatul dara amatul sax alal ji mu warlu génne asaka sax nekkatu fi dana wut xaymay maanaam warlu dana wut xaymay lu toll la mu warlu na génne asaka génne ko muy asaka aw adxala wala mu tàbbal ashrahu fukkeel ba mu faral tan mbir mu di aji sàggan au lieu mu jëlee ko ca kër ga ca àll ba indi ko ci kër gi te dugalu ko fu fu wóor foo xam ne fii dana ko tëj wala yooyu béyi xar yi ñëw ne ko et dana dana warlu waaye laa mu xasina bi ceegi ndem sëñil na ko de daf koo indi nag dugal ko ci néeg bi tëj ko xam nga seen néeg yi ñax yooyu la mu mu lakk mu tàkk kooku nekkul def na ko mu xasin maanaam daal nu ñu ko waxee def na ixtiyaat daal farlu na ci daal ci garde ko waaye nag yàllaa ci dogal loolu kooku moom dara du ko war mu ne wa illaa su fekkente ne nag charte boobu amul maanaam dugal indiwu ko ci këram ba noppi boole ko càggante te itam sañewunu ko xamunu daal lan la jublu woon indi na ko ci kër gi xamunu ndax fas na ko yéenee dugal foo xam ne dana am mawdu o tahsin lay doon wala daf koy wacc foo xam ne rek lu ñëw jot yàlla dogal ci diggante bi rek jaahiya am ci mbir mi ndax kon dana war nekk nga xam ne dafa ko toxal jëlee ko ci tool yi indi ko ci kër gi te dugalu ko fu wóor wala mu ngi koy xamul woon dana ko dugali fu wóor wala du ko dugali fu wóor dogal bi daal ba mu ko toxal ba mu ko toxalee ci àll ba daal xanaa foofu la defee loo xam ne comme mënoon na koo joxe foofa moo indi ko te loolu xëy na mën na nekk tërë dugub am nañ ci démb démb. boo xëjee jàppee fitna asaka min tarikati li mayiti ci li néew bi bàyyi bu gaañoo bu gaañoo bàyyi mat asaka dañuy génne asaka ji de wa daanu jàpp asaka itam kër xën ci noteel ci dóor wala xeex ba in biir qitaalin maanaam dañ koy forcé jël ko ci moom ci alalam bu ko ci asaka waree doonte dafa ànd ak xeex ak moom itam bu ca deewoon itam ba uddi ba yaree fat na ko nag bu fekkee ne itam nag dañ koo forcé dafa bañ ne du génne asaka ñu forcé ko ba génne asaka ji ba noppi nag daañu ko yar da ko yow da ngay font xanaa xanaa xamul ne asaka moo taxoon sidna Abu Bakar radiyallahu anhu xeex ak lu mu defi ndax bañ a joxe asaka xanaa xamul ne asaka ci ponki lislaam bi gën a dëgër la bokk daañu ko yar nag boo du fi at jañee fat na asaka maanaam daañu ko jox lil imaami ñeel njiit li al adli ka di aji maanu ñaay nettali diggante alqaadi ma jaxate kalaat laat joor ni nga nam imam bi nga xam ne daal leer na ne yoon jàppaloo na ko asaka te bu ko te bu ko jàppee it danga ko dugal foo xam ne fii fa la ko yoon sante mu ne bu ñu ko génnee moom lañ koy jox bu fekkee ne nit ki dafa xam ne mën na ko koo jox ndax maandu na te njiit la benn daf ko tayee di ko joxe ji wala du xam ma bañ mën naa bañ a juum ci dafa bañ a juum ci jox ko ku ko yeewul wala yu mel noonu daal dafa ko mën a jox imaam gi nga xam ne maandu na nga ne ko xanaa booba day mbay rek wala ndox ki mu ne bal wa in aynan doonte kee la woon it mu ne léegi wa in xarra ndem war na abdum jaam bi xurriyatin ci ko ju ngor mu ne moom mën na lekk asaka ndax kenn moomu ko libre na fa jinaayatun kooka day jinnaaya la mu mel ne jaam ba xoofu nopp fa su jaambur jinnaaya xam nga moom bu fekkee ne jaam def na jinnaaya tooñ na wala mu kii lan dañ koy jàpp mën nañ koy xay xayma bu àggee ci moom xam ne dañ koy xayma moom jaam bi dugal ko ca loola dañ koy def fekkee nag du jinaaye nag borom rek ci yeneen alalam mooy fay léegi nag su fekkee ne waa ji dafa dem ne moom kat dégg nga libre na bañ jox ko asaka yi mu ne ko tandeex ñu jàpp ko nag fekk ne moom li mu wax du dëgg dañ ko téye jinaay dañ koy jàpp comme jinaay bu ko defee dañuy dal di jàpp kii bi ndax mu ngi ci ci ci baatam la nekk borom kii bi moom jàmm bi la ñuy jàpp téye ko ne ko ab bor kii ki ko moom na ñëw dégg nga bu baree bu indiwul dara si saa si jàpp ko ñu daal di koy jaay xam nañu seet xayma génne ko ci moom. alal arjaxi ci wax ji gën a lëng kon gayrul arjaxi ngi fi dem ñu yor suñu atraaf ñoo ko si yow fi fi daal di jaay فيها من يقيد يقيد تعلق بذمته ويكون بها إن أعتقه ولا إن أعتقه wala léegi bu jinnaaya duñ ko jàppe comme jinnaaya te kon waxtu benn bu ko borom xëyul waxtu bu boree dana ko fay bu dee jinnaaya bu fekkee ne borom itam bëgg na liggéeyloo jaam mu amee daal di koy jox ba tey mu nekk alabdu in kutila fi lmaali yuqar mu ne wa zakka asakaalat na alalam musaafirun aji tukki dana dana asakaal kon maamaahu la ànd ak moom ci alal la mu fi yor rek waxtu woo xamee ni bii tam xarit jot na ñu ne eh waay loo am waay dañu seet la mu bàyyi de dañu seet li mu fa yor rek wa maa xaaba loola nag dana ko asakaal moom kañ in lam yekkul ndim nekkul muxrijun di aji génnal ko wala dara waaw war naa am it war naa am it kii nag ay mbir dëkk naa xam bitew kii ah loolu mën a am de dégg nga dañ mu ñu nag wala darurata déet nag xorlin ñeel asgor